asalaamaaleykum jaajëfal leen bu baax ci fasante ko lër geeku tey gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré ñu lëkkaloo ci suñuy diwaan juróom-ñeenti waxtu ca Medina Cheikh ca Ndar bisimila ci xibaar xibaar yi euh, ñaari nit ñu ñàkk seeni bakkan yeneen ñi amee gaañu gaañu mooy bilan accident bi xaw ci yoonu Bambey diggante yoonu autoroute bi bàyyi ko Thiès bu Touba ci ndorteelu xibaar yi dinañ ci daal di jukki des Descos daal di nag euh, ànd ak administration local bu Thiès daal di xëy daanaka liggéey yi jëm ci daal di joyanti site bu Mbour 4 lañ doon amal am ay nag dëkkuwaay yu ñu fa daal di euh, daaneel mbir moomee nag tey jii def nañ ko ci nag matuwaay sécurité yu mucc ayib dinañ ci jokkoo askanu Mbour 4 di ci yëkkati seen i nag kàddu njàqare ak métitlu la ñu def ci li ni mel di wax ci njiitu réew mi la mu di saafara mu daal di ci rek addu lu war a toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay membre ak ña ay liggéeykatu contractuel Sénégal euh, ca Sénélec di wéy di daal di nag ñaawlu doxalin bi ñuy def jëme ci ñoom jàpp ne wàllu clientélisme politique dafa daal di tax ba lu bari ñu daal di koy nag ñàkk ci Sonatel Sénélec googu ba tax ñu ngi addu addu jëme ci rek protocole d'accord bi ñu xaatimoon euh, ci atum 2020 ñu daal di ci nag dellu siwaat tey ji amal nañu rek ndaje eh, dinañ ci daal di telli seen nag euh, ki yore seen kàddu ponk wax sa xalaat yi bokkoon na ci li aju ci wàllu nag mbas mi ak lim gi ñu daal di gis muy gën di yéeg di bari itam ak wàllu vaccin ba ñu daal di nag euh, teg lépp li cee daal di aju dinañ ci daal di addu rawatina euh, matuwaay yi ñu rek war a jël ñu ci bari daal di koy négligé euh, xeex boobu sax yóbbu ñu ca Mbuur ak service di d'hygiène bi daal di nag wàcc daanaka barab yi nga xam ne ay lieux publics la lépp li aju ci wàllu cetal gi ñu daal di koy nag amal Moustapha Sall lañ ciy daal di nag jokkool dinañu fàttali beneen ponk wax sa xalaat bi <laughs> aju ci wàllu nag daara yi ak li aju ci wàllu taalibe yi nekkin gi léeg-léeg muy dem ba ci wàllu yoon ca daal di nag am njàngat lii ci kanam ñu daal di ci nag ubbi anten bi toftal ci yeneen i xibaar Alassane Wade moo ne ci sottandikukaay bi faram-fàcce Guinness kiis lay doon. Euh, ci kàddu gi ñu daal di koy nag doo rek accident bile ñaari nit faatu nañu ci am ñu amee ay gaañu gaañu euh, mu ngi am nag ca wetu bambay autoroute bi bàyyi ko Thiès dem ba Touba euh, ab soxna la ak doomam ñoo ci daal di ñàkk seeni nag bakkan ñoom nag ñu ngi leen dem ca Touba Adama Ndiaye mu ngi koy rek toppal moom mi ñu yeggee yooyu le xibaar. coow la ca Thiès di Descos mi daal di xëy lëkkaloo ak administration locale bu cees daal di nag euh, amal liggéey bi ñu daal di bëgg a joyanti site bu Mbourkat ñu jàpp ne anam yañ fa sampee ay kër euh, jaaral ci yoon dafa dugg ci forêt classée bu Thiès googule euh, tey jii ñu daal di koy nag xëyee jël nag seen i matuwaay ci wàllu takk der dispositif ci wàllu sécurité boo xam ne teg nañu ko nga xam ne kii di préfet bu département ba moo ko daal di jiite cees Babacar Ndaw muy mberteel si ñu bare ñu dëkk si Mbour 4 rawatina ñi nga xamante ne tey ji ñoom ñoo fa amoon ay chance si amuñu benn këyitu bu leen autorisé ñu tàmbali tabax Moussa Diagne ji préfet bu département bu Thiès jiite opération yi ay at a ngi nii li nga xam ni ñu ngi koy utiliser espace bi dem ba jéggi dayo ci espace boo xam ne nii yoon dafa dogal ni kenn waru fi tabax ndax forêt bu ñu classé la mooy que ni kenn waru faa mën a tabax lenn loo xam ne ni ay dëkkuwaay lay doon tant que déclassé wuñu waaye ma fàttali ni wàllu lotissement lotissement bi bañ ko dee def jaarale nañ ko fa ñu jaarale bépp lotissement ba am ci autorisation de lotir waaye malheureusement bañ a cay waxtaan ca jamono jooja dañoo xamul woon ni ci biir partie lotissement bi nga xam ni autorisé nañ ko lu ci gën a bari ci lotissement boobu mu ngi ci biir forêt classée ña nga xam ni ñoo dëkk ci parti bi nga xam ni moom moo dugg ci biir forêt classée amoon nag wax dëgg yàlla problème pour am autorisation de construire parce que autorisation de construire service ñoo koy joxe ak collectivité territoriale mais nañ kaasa la autorisation mun a fa am. Descos bàyyiwul benn po jumtukaay bu ñu sukkandikoo seen kilifa colonel Papa Sabouri Ndiaye di si yokk nag ne liggéey bi moom lu mu laaj dinañ ko def. xool leen mur yëpp xonq lu ëpp ñaari téeméer ak juróom fukk arrêt Descos ko ci chantier yi lu ëpp fanweeri nit jàpp nañ leen procureur mais taxul ñu arrêté xam ngeen Descos du génn guddi code bi mayuñu ko loolu aussi ñu ngi si def ay jéego pour que disposition ñu mën ko jël ba nga xamante ne même guddi dinañ mën a jóg ko te mosuñ ca dellu ginnaaw te lii aussi dafa nekk loo xamante ne tàmm nañ ko parce mooy suñu mission yaakaar naa ne buñ jógee ci lii ku ci nekk bi ngi ci tiré ay loolu tey jii la administration bi ñëw ngir corriger ginnaaw septembre 2017 bi leen jiitu réew mi wax yi nañ ko régulariser ngir bàyyi askan bu Mbourkat extension ñu am seen këru po moomeel Ndaw Thiès Sud FM Ndaw daal di koy jaajëfal ñi nga xam ne nag ñoo samp seen kër bu Mbourkat bu Thiès i naqar seen i njàqare ak seen i nag métit ci opération boobu ñu yu bari eh, ay sénégalais yi nga xam ne ñu ngi wéy di interpeller njiitu réew mi ci nag la mu waxoon 2007 mbir moomu dina ko daal saafara seen porte parole lay wuyoo ñu déglu ko ak Ndaw. président moo ne woon waa Mbour dinaa leen régulariser. xanaa ñoom amuñu moyen. ma ne feebar baa ngi nii mbas maa ngi nii sonal jamono. sonal àdduna président nelawatul kenn nelawatul ndax mbas mi mais tey ñoom ñu ngi yaatal mbas mi parce que tey ñoom ñu fi

yow ngay réglé ay këyit bàyyi ñu fi def suñu taxawaay mooy ñu wax ak président parce que président mooy njiitu réew mi kaddu président kaddu président la dañ ko war a respecté ñoom nañu xool nan la ñuy réglé loolu nañu respecté kaddu président décret génnagul nga ñëw teg ay kër jàmbur kër yoo xam ne ay millions lañ ko taxawee tabaxee xanaa ñoom seen yaram du daw xanaa préfet Thiès xanaa dëkkul Thiès xanaa ñoom c'est pas des administrateurs civils yoo xamante ne fii lañ dëkk dañuy retraité ñun on prend toutes nos responsabilités nañ ñu defeere wax dëgg yàlla parce que ñun dañoo respecté dañoo respecté directive yi président jox lii ñàkk pexe la parce que gis ngeen maa ngi nii sama mas ñàkk pexe la parce que dañoo bañ feebar bi yaata mais ñoom ñii li ñoo ko indi bu bu ñu demandé président bu ñu ngi ñu ngi koy demandé président bu ñu jógee foofu nag dañ teg yeneen jéego ñu leen dem si presse li ma fi gis daal moom bëri na mën nga koo lim parce que ñun dañu doon sax tere tere tere ñu jege fa dañu faa tere jege fa ñëw indi seen armement indi seen militaire indi seen camion dégg wërale ñu kenn du jege bu ñu paree nag bu laajee leneen parce que euh, actuellement nii bépp manifestation dañ koo tere ñun over être dañoo war over être légaliste dañoo bëgg ñu dikk nag ak téeméer ak euh, juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay membre ak euh, ex liggéeykat yu contractuel yu Senelec ñoom ñi daal di wéy di ñaawlu doxalin bi jëme ci ñoom jàpp ne dañ leen ca daal di tooñ ci biir Senelec ñoom nag bëgg nañu protocole d'accord bi ñu xaati moon juróom-ñaari fan weeru août 2020 ñu daal di sàmmonteeg euh, moom ndax nag kii di présidente bu au conseil dialogue social lëkkaloo ci imam Makhtar Gueye ak juróom ci ay rek syndicaliste ñoo doxoon tànk yooyu le reconnaître protestation ñaawlu direction générale ba na muy doxee waaye itam euh, fas yéene ñu daal di leen rek euh, saafaral lañuy laaj tey jàkkaarloo nañ ceeg taskatu xibaar yi ca siège bu FRAPP dañ ciy teewlu kii di Ousseynou Sougou yore seen kàddu ak satu Gueye Ba. mooy népotisme bi nga xam ni DG Bitèye moom lay def parce comme ni ko gars yi waxee rek ñun ñëpp on a les preuves nécessaires yi nga xam ni moo fi nekk am na ay doomu ministre boo xam ne recruteur am na ñoo xam te ni clientèle politique bi nga xam ne moom lay def moo dul dëgg du yoon ñun li ñu koy wax mooy mu respecté protocole bi ñun loolu kese moom moo ñu ci intéressé te aussi tamit mu mën a waxoon Mame Matar Gueye ONG Jamra bi nga xamante chaque fois mu ngi koy woo du ko jël daf ko waxoon ne ko dinaa la revenir parce que Sénélec dafay def un conseil d' administration c' était le 28 décembre ñu def conseil d' administration ba pare jusqu' à présent de deux envoyé na ko message nanguwu ko wuyu de trois envoyé na ko audio nanguwu ko wuyu mais qu'est-ce qui se passe quel problème lan moo tax nanguwu ko wuyu wax ko ñun lan la nar ci ñun waaw parce que ñun un ay doomu sénégalais lañ Sénégal gii la ñu juddoo fi la ñu yaroo fi la ñu màggee parmi nous ñi si ginnaaw nii am na ñoo xam ne jugee nañ ba Ziguinchor am na ñoo xam ne jugee nañ Bambey parmi nous ñu ngi fii toog te dañoo nar a delluwaat jël oto delluwaat loolu dafa métti voilà innocence tam Ndiaye mi nga xamante ni moom bi dossier bi tàngee jër moom moo jug sol dàllam di ci dox di ci wax boobu ba moom tam ñu ngi koy interpellé nanguwu ci dox nanguwu ci wax loolu tamit tegu ko fenn kenn xamul lan la ñun nag li ñu leen di ñaan mooy ñu régulariser dossier bi bareetul une centaine de personnes ñoo fi nekk Matar Cissé mi nga xam ni moo fi nekkoon DG Senelec en 2016 en décembre 2016 régularisé na fi 200 agents 2017 mu régularisé waat yeneen 200 agents a bu ci topp mu régularisé 93 agents mais pourquoi bi tey mënul def loolu je tiens à témoin monsieur Macky di moom mi nga xam ne mooy président de la république du Sénégal di ko wax ñun ay sénégalais lañ ci dëkk bi la dëkk fii la ñu fii la yaroo fii la bëgg a am suñu teraanga comme ñëpp jógee fii suñu plan d'action ci topp mooy dinañ bind suñu lettre de protestation te dinañ ñëw en masse ñu déposer ko au niveau de la direction générale de la Senelec pour dénoncer le népotisme bi nga xam ni bi moom la nekk di def. Sud FM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. wàllu mbas mi ñu daal ci nag desandi gannaaw xayma bés bi nga xam ne nag lim yi daal na yokk ñuy faatu itam euh, waxi noppi mbir moom moomee nag tax ñuy baral li nga xam ne mooy xeex bi ci yenn ci ay barab ca Mbuur ni mel la ñu daal di nemmeeku ak brigade départementale bi yore wàllu euh, service di d'hygiène ñoom nag wàcc nañ ca terrain ba ñu àndandoo ngir rek daal di désinfecté ak setal euh, barab yi ñuy duppee lieu public yi ci mel ni marché yi keet pêche ba ba ci sax gaaru ceer ba commandant ba nag askan wi ñu daal di ciy dugal seen loxo Mbour Moustapha Sall. fexe ba wàllante bi dakk fii ci diwaanu Mbour loolu day mooy xemmemteefu ñi nga xamante ni ñooy waa service d'hygiène soldats yi nga xamante ni dañuy xeex tilim daan feebar ñoom fi ñu toll nii ñu ngi dugg ci barab yi nga xamante ne nit ñi dañ fay dajaloo di ko puudar adjudant Omar Diawo. moo jiite brigade d'hygiène bu Mbour. comme fan yëpp dañ gis nañ ni virus baa ngi fi corona baa ngi fi mu ngi lëmbe te gis nañ ni aussi cas communautaire yi ñoo ëpp cas contact yi te boo déggee cas communautaire rek dafay fekk nit ki jëlee doomi jàngoro bi foo xam ni xamuñu fu fu mu ko jëlee mun na doon marché mun na doon ci biir oto mun na doon gare routière mun na doon quai de pêche comme lieu yooyu dafa nekk ay lieu yoo xam ne ay nit dañ fay dajaloo donc ñu jotoon ay ci autorité bi comme quoi que nañ koy def nañ koy nañ koy désinfecté njëriñ bi mooy mooy dog dog dog wàllante bi moment que xamuñu fan la virus bi nekk ak fu mu newul donc buñ ko bu ñu désinfecté on est sûr quand même à quatre-vingts pour cent moom sax ma ngay ñaax askan wi ngir ñu dëppoog digley kër docteur ndaxte feebar bi mi ngi tamba mbalu ci réew mi. xam ni feebar baa ngi fi. ñu continuer respecter mesure barrière yi maanaam di sol masque di raxasu ak ndox ak saabu respecter distanciation physique bi moytu xew yi. moytu vraiment dox bu bëri bi ak yooyu. war nañ ko mun a wàññi. boo amul lu lu bu fekkente ne lu nekkul lu farata rek. lu nekkul farata rek jarul nit di génn di doxi donc euh, nañu xam ne feebar baa ngi fi te mu ngi lore. ci xeex wàllu gu ni mel ba léegi yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Mbour quai de yi xamante ni dañ fay dajaloo lu ci mel ni site de transformation yooyu la léegi juróom-benni waxtu la ñuy tëcc gannaaw bu ñu ubbee 6 heures du matin yi marché lu muy nag moom kenn tijjeegu ko ba léegi mu Moustapha Sall fii ci Mbour ngir Sud FM. Moustapha ñu daal di dikk ci jàngalekat yi euh, syndicat autonome yi nga xam ne nag ñoo daal di taxaw ngir éducation ak formation daal di suqaliku di sa def euh, bokk ci G20 ñu ngay ñaawlu itam yéex yéex bi daal di nag am ci matuwaay yi njiitu réew mi daal di euh, diggee bokk na ci wàllu nag fay pré DMC yi waaye itam lii di seen i nag indemnité ji ndàmpaay yi jëm ci seen i examen ki seen i concours ñoom nag décision bi njiitu réew jël démb ci wàllu conseil des ministre sa def daal di bëgg njiitu réew mi daal di bàyyi rek di joxe instruction waaye jël matuwaay yi tax ñu daal di nag jëfee la ñu xaatimoon eh, Mbaye Sarr mooy secrétaire général bu sa def ñu déglu ko ak eh, Birama Ndiaye. dañ jàpp ne loolu également ay initiative yu rafet la waaye li ñuy metti rek mooy dañuy ñaawlu yeex gu nga xam ne moom la ko gouvernement bi yeex a jël parce que comme ni ngeen ko xamee état du Sénégal wurul dem à chaque fois ko ba pare jàngalekat yi di daw pour ñu fay leen seen am te loolu du dëgg du yoon te jekkul rafetul jàngalekat yi dañ leen war a jàngalekat yi dañ leen war a jàngalekat yi dañ leen a jox seen cër jàngalekat yi joxuñu gëdd jàngalekat yi respecté wuñ jàngalekat am mukk un système éducatif performant kon donc li ñuy wax président de la république ginnaaw bu mu jëlee dogal boobu ba mu jël dogal bu nga xam ne désormais dootuñu dundati mukk loolu parce que dañ ne l' état paye après service fait jàngalekat yi l' état li leen war a jox seen ndàmpaam bi leen war a jox loolu jekkut rafetut te du dëgg du yoon tout comme dañuy rafetlu aussi initiative bu président de la république jël ne nañu fay prêt DMC yi parce que la dernière fois bu ñu mujjee fay benn prêt DMC c'est en avril 2010 ça plus de ans alors que agent de l'État yi ñu ngi jox ay convention particulièrement les enseignants depuis des années kenn mun leen fay parce que trésor mun leen fay ndax joxuñu instruction trésor wala trésor amul na président jël benn dispositif nga xam dafa war a képp ku nga xamante bi déposé woon nga crédit DMC depuis jamono jooju ba léegi ñu jëm la ko fay parce que loolu également dafa bokk ci liy améliorer également ci école yi parce que cette année def benn tournée dem dans cinq académies mais lañ fa gis dafa jéggi dayoo parce que élèves yi nga xam ne dañ leen di dajale ci ay salle de classe ñuy toog par quatre ñuy toog par cinq loolu département Vélingara ñu ne ñu ay élèves yi waroon a dugg de CI ñu renvoyé leen ñu dellu seen kër parce que amuñ fuñ toog loolu jekkul rafetul dañuy laaj ooy le droit à l'éducation donc état du Sénégal na jël ay matuwaay mat sëkk fépp fu établissement nekk ci Sénégal manqué étalement ñu yóbbu ko fa pour que njàng ak njàngale mi mën a nekk ci condition donc président de la République ginnaaw bu ñu rafetloo mesure yi jël mais dañ ko wax également rapport NMT de déplacement Euh, ñoo dikk ministre bi ñu dénk artisanat ak secteur informel euh, ca Ndar daal dinay nemmeeku ñii di artisan yi nekk foofu ci village artisanal ba moom Papa Amadou euh, Ndiaye yóbbul na leen nag li nga xam ne mooy jàppale gi aju ci wàllu nag mbas mi di aide Covid 19 bi te njiitu réew mi diggee woon ko ne ñu nag artisan yëpp bu ñu leen xayma ñaar fukk ak juróom ci milliards lañ leen war rek jébbal réew mi yëpp waaye itam ku ci ne ca Saint-Louis Louga ak Matam chèque bañ la daal di nag jébbal war rek toll ci euh, fanweer ci ay rek euh, junni juróomi milliards lañ ko daal di xayma gox boobu boobule euh, Papa Amadou Ndiaye ñu déglu ko ak Yves Tendeng ñi ngi ñëw tey fii ci Ndar ci ndigalu président de la République président Macky Sall ci baaxam ci tabeem ak bàyyi xel askan wi moom moo tax mu daal di am loo xamante ne lu ñuy wax ab ndimbal ñu tuddee ko aide Covid nga xamante ne artisan bu ne ci ñu bindu woon ñu jox leen somme bi nga xam ne mooy cent cinquante mille francs ci ndimbal muy fanweeri junni ku ci ne dinañ la ko tegal ci sa loxo di ndàmpaay gu ndaw bu mu leen di jàppale waaye ñu xam ne que lii ñuy def muy njëkk ci li ñu door moom mooy samu cinq milliards de francs CFA suñu góorgóorloo ci tuuti dinañu seet ak ministère de finance ci mu jàppandal ba nga xamante ni vingt cinq milliards yi nga xamante ni mooy enveloppe bi nga xam ne président teg na ko ci loxo artisan yi incha allah ci diir gu gàtt ñu góorgóorlu ba ku ci ne rek mën a jot ci la nga war a jot xam leen ne nag mbir mi ndànk-ndànk la ñëpp mënuñoo xëy rek ñëpp yor la mais xam leen ne sunu kem kàttan dinañ ko def ba mbir mi ci ci lu gën a gaaw ñëpp mën cee jot ñu ngi koy continuer li nga xam ne président teg na ko ci suñu loxo incha allah dinañ ko dox ba ku ci ne la war ak la nga war a jot ñu dinañ góorgóorlu ba nga jot ko di leen wax ne nag ci sama tur ñu ngi sant di gërëm président la république xamante ne ñi ne ci biir secteur bi dañ koo yàgg def moom mooy bëggoon bës ñu moom seen bopp moom seen bopp mooy ñu wutee leen ministère boo xamante ne ñu ñaan kenn ñoom ñooy moom seeni ministère di ci fa buur di fa bumi président defal na leen ko tey muy ministère dédié muy ministère de l'artisanat tey jii artisan yee ko moomal seen bopp waaye tamit ñu leen di artu di leen wax yéen ñëpp ku ci ne fa ngeen jëm ngeen góorgóorlu ba nga xamante ne lii ñi nga xam ne ministère la santé moo koy wax mesure barrière yi nga xamante ne moom la ñu digle yéen ñëpp ngeen necca ñu daal di dem ci dëkk boobu di jël ak euh, pël foofa ca Ngajaga euh, askan wa nag ak seen i tiitaange la ko waral mooy usine ba nga xam ne mooy usine Fortesa bi daal di nag lakk ca barab euh, boobule ba boobu léegi sax am na ñaari nit ñi ci daal di ñàkk seen i nag bakkan jafe-jafe nag am na ci anam ba ñu bëgg rek fee lakk ba ba tax askan bi ñu ci bëri ne lewatuñu bay rek xandoor Babacar Sow. lakk gu métti gi am ci usine Fortesa bu Ngajaga ba léegi mënaguñu loolu xam ne lii jaaxal na askan wi lool ñu nemmeeku tiit ak njàqare ci dëkk bi ñuy dippee jël ak pël su sukkandikoo ci askan yi li ñuy yàmbi nee nañu daal nekkatuñu benn yoon ci kaaraange ba tax sax ñuy sànnik yoox rawatina ndaw yi ni daal nguurug senegal na leen taxawu ba li nga xamee ni moo di lakk gi ngalawaay nañu ko fay di lakk goo xam ni nemmeeku nañu ñaar nit yoo xam ni faat na leen ingénieur bi ñu doon dippee Henri Guéné ñàkk bakkanam ginnaaw nga xamee ni mu ngi doon rawale matériel bu nekk ci usine bi ak waaye takk der boo xam ni barki démboo Njaay la daal de ñàkk bakkanam ginnaaw bu daanoo ci bassin de rétention bi nga xamee ni moo def ndox gi ñu waroon fay lakk gi Abdou Gadiaga di wax ci turu ndaw yi nekk ci dëkk bi. opération d'extinction pour fay lakk bi ba ba léegi ñu ngi xaar mais commencé gul ba léegi te wax dëgg yàlla population bi pour ñu rassurer leen parce que ci inquiétude bis bu nekk la ñu nekk ci jaaxle tiit ak jaaxle ci la ñu nekk ba ba léegi ñu ngi romb dara mënagul fay donc ñu ngi regretté wu di jaale famille yi nga xamante ni ñoo fi génn adduna muy l'ingénieur Henri mi nga xamante ni gendarme fàllu mi nga xamante ni moom itamit ku baax la di wax ni vraiment daal état war na ñëw jël ay dispositions nécessaires parce que it wax dëgg yàlla ñun population Ngadiaga sonn nañu jaaxle nañu bis bu nekk ñu ngi ñuy annoncé ay mort ak euh, bassin boo xamante ni daal vraiment bassin de bu ñu gas mu nekk danger boo xamante ni à chaque fumée bi ak yooyu wax dëgg yàlla jaaxle nañu quoi ñu ngi appeler l'état à ce que la mu prendre ses responsabilités ci mbir mi daal. ñi ci bëri nga xamee ni am nañu wàllum jafe-jafe wér-gu-yaram ci wàllu nooy tiivawan Babacar Sow dañ siy jokkoo ak yéen fii ci Jël ak Pël pour Sud FM. ah ñu daal di dikk nag eh, ci reportage yu bés bi fii ci Ndakaaru ak eh, lii di ay épave oto yi nga xam ne nag dafa daal di nag bari lool ci eh, mbedd Ndakaaru yi yu ci mel ni fii ci Sacré-Cœur waaye itam yu ci mel ni Ouest Foire askan wi dëkkee nag ci quartier yooyu le jàpp ne situation boobu daal daanaka rafetul ci gis-gis responsabilité bi nag jàpp nañ ne état bi la ak njiiti gox goxaat yi di collectivité locale yi jàpp ne ñoo war a rek euh, fexe askan wi nag euh, seen i environnement ak la ñuy daal di dund méngoo ak wala nekk lu sell Ismaïla Marcel ko li ëpp ci tali Dakar yi rawatina ci gox yu mel ni Sacré-Cœur VDN wala Ouest Foire ay oto yu yàqu la ñuy faral a gis ñu sandi leen ci tali bi wala ci garage mécanicien yu nekk ci kaw tali bi lu ñu mel kii di Baraja dëkk ci Ouest Foire di ñaawlu ni ma ko gise nii gisin bu doy waar la comme ni ko majeure partie pop si euh, dëkk bi gisee loo xamante ni rafetul non seulement si gis-gis mais également ci encombrement. góor gu mag bi ñu dajal ci wetu foire moom it jàpp ne mbedd mi du mbalit bekk mu neex rek sa oto yàqu nga wàcc ko ci tali bi. li nga xam ne mbedd mi du place daal mbedd mi du place am. baaxul ci askan wi baaxul ci jaww ji. baaxul ci rafetaayu dëkk tam waaw mbedd moo romb mu ngi fees dal ak oto waaw loolu du yoon. waaye ñoom ñaar ñi ànd d'accord ne situation bi ñu mel nguur gi ak collectivité locale yi ñoo ci war a indi saafara. donc loolu nag bu amee état bi moom moo tax mu mën a am. ak collectivité locale yi maire yi ndax euh, ñoom dañ leen fee teg pour ñoom ñu toppatoo li nga xamante ni dëkk bi noonu la war a fonctionner donc ñoom ñoo si war a jug jël si ay mesures. waaw loolu du yoon nguur gi nag moo war a jox jóg seet nu muy régler loolu. waa wàññi oto yi ci mbedd mi seet nu ñuy gaaree oto yi donc nguur gi ak mairie yi war nañ jog ci loolu waaw dimbale aussi borom garage si ñu am fu ñu nekk ak fu ñu dugal seen oto loolu yëpp si jagal liy jagal mbir mi lay doon. ci fàttali état du Sénégal jëloon na fi ay ndogal jëlee fi bépp garage mécanicien bi nekk ci kaw tali bi wala oto bu yàqu te ñu sànni ko ci mbàdd bi waaye yu ñu seetlu tey mooy mécanicien yi ñëwaat nañu si bërëb yi ñu leen jëlee woon ñenn ñi di fay wàcc ay oto yi nga xamante ne kenn soxlaatu leen. <laughs> ñu daal di tàbbi ci jotaayu wax sa xalaat ak ponk yu ñu jukki woon ci juróomi waxtu yi am na ku ne ci ligne bi dañ koy jël bokk na ci wàllu nag daare ak taalibe nekkin bi e faral ba dem sax ba ci wàllu atte bi ci des mooy wàllu mbas mi ak ci aju ñu jël ku ne ci ligne bi allo. ku

doo jël sa xaalis di koy def ndax xaalis ñoo koy liggéey moom ko. dëgg la waaw. te am na sama sama xaj mën nañ cee nuyu suñu xar wala suñu bopp. dëgg la waaw. léegi nag euh, yaa yaa sa benn xale bu jigéen bi xam nga ñett ngeen yaakaar naa ne. Hmm. xale bu jigéen xale bu jigéen bi moom damay dama lay ñaan yow nga egg ko ko moom moom mu tëddee njaaxaanaay bañ a fa politique bañ a farak bañ a farak euh, opposant. baax na waaw. maanaam maanaam defu ko nag defu ko nag. Hmm. maanaam defu ko nag damay bañ mu def ko. waaw yow yow defagoo ko. Hmm. xam nga man moom noonu laay waxee defagoo ko yow. waaw moom it baax na waaye man maa ko ñaan maa ko ñaan na ko bañ a def ndax kara émission bi pousse nañ ko ci ba sonn waaye def ko. baax na waaw. ñi pousse ñi ñi fàtti bi pousse nañ ko ñi fàtti paa bi pousse yaay daa daa bañ. na waaw. bañ boobu nag na ko continuer gis li ma lay wax nii. Mhm. muy dëgg. mag mhm. ah, mag mag mag bu bii bu demee wala njab ak na ko bàyyi li nga wax waroo koon wax. wala nijaay li nga a wax bu saa kenn wala li nga wax eh, waroo koon a wax. loolu émi émi émission bi man ma dégg naa ko ci daaw daaw ma ko ci dégg li ma ci li ma ciy wax nag mooy amul lu ko jar. kaa politicien de kaa kii attaqué. kii dafa am dara ci am. waaw waa alaaji amul amul ku ko yi rafet na ay dénkaane la. Euh, ci thème bi nag loo ñu ci mën a. waaw waaw thème bi thème bi man man xam nga thème bi dama ne yow laa woo. Mm-hmm. man li li ma damaa bëgg man man ma pare man côté boobu laay waxee après dinaa déglu thème bi waaye déglu naa lépp waaye dama ne man ñi ñi attaqué ñi défendre xam nga ñaan ñëpp laa wax. Mm. amu ci kenn ku ko ci wóor am nañ cinquante ans. man ñu ëppal naa ku cinquante ans ku am dee jawe nga dee. Hmm. ñiy défendre oppositeur ak ñi koy attaqué état bi amul kenn koo ci jaral. Hmm. amul kenn amul kenn koo xam ne li wax jar na ko. ñun ñëpp laa wax man loolu laa doon wax d' accord d' accord jërëjëf euh, sëñ bi ñu daal di kon jëlaat keneen ba tey euh, ci ligne bi ñu daal di koy nag euh, déglu allo salaamaaleykum. waaleykum salaam madama. waaw. ñu ngi ziare. ñu ngi lay delloo ziar waaw. man eh, la Gassama waaw. Gassama waaw ñu lay nuyu. waaw eh, Momar li may wax daal mooy man démb wax na sax ndongo daara daal war nañu xool système bi bu état bi xam ne ñoom moo leen jogot ak ñiy jàngal daara yi. Hmm. système bi sooy xool ci Covid bi yaakaar naa déglu naa ci revue de presse benn commissaire. Hmm. nee na bi ñuy jàpp ci ñi solo ma seen alamaan rek dem na deux millions et quelque. Hmm. kon mbokk loolu rek mën na ci sukkandiku jàng jàppale. ñi ci daara bi dafa defaroon leen dëkkuwaay bu baax ak fu ñuy demee sangu ak seeni toilette su dul loolu aussi aéroport international bi mhm. na ñuy def képp ku fay wàcc parce que kuy voyage rek am na njëgu billet mhm. képp ku fa wàcc nañ lay collecté même su fekkee cinq cent la mhm. xaalis bu ñu xool teg ko ci loxo yu wóor dajale ko sëriñi daara yi ak daara yi su weer dee lu mu doon ñu sëddale leen ko dàll yi ñuy sol ngaa ye nga ne di defar ay dàll nañu dem di leen fay commander xale yi dàll yu dëgër yu ñuy sol daara yi nañu fexe ba jàngal xale yi base sept ans six ans wut ab tailleur su état bi di ko fay quarante mille cinquante mille par mois mu jox xale yi même su fekkee trois heures de temps la âge bi ñu toll ñuy jàng alxuraan bi jàngale métier nañu fàll ci suñu lii comme li ñu amoon ci culture lépp ngi naat saay nañu jàppale ñiy jàngale daara ak xale yi nekk ci daal moom su ma xoolee ci internet bi xale yi hmm. su ma yaram day doo doo boo xamante nii yàlla mi nga xamante ni mooy xéewal mooy boroom xéewal yàlla na suñu boroom jàppale leen ci lii ñu nekk ak ñi leen di jàngal. Hmm. jàmm xéewal. Hmm. Euh, kon nga ñu daal di koy jaajëfal xaarati keneen jël ko ci ligne bi biir réew mi walla bitim réew ci tay wax sa xalaat ñu jël keneen allo. allo allo waaw. waaw. man la Anna Mary si woote parcelle. waaw ñu lay nuyu soxna si. waaw kay maa ngi di nuyu waa Sud FM ñëpp. ci ci vaccin bi laa bëgg a wax. waaw. loo yéene sa bopp yéene ko sa morom jàmm ne mooy ñii na jëkk a ñàkku président Macky Sall dina jëkk a ñàkku pour rassurer les sénégalais defal leen carte d'identité yu bees yi moo ko jëkk a am permis yu bees yi moo ko jëkk am wan na ko jëfe na ko vaccin ci population yi ñi ñuy jëkk ñakk mooy troisième âge fajkat yi ak ñiy dox ak ñiy dox ak jàngoro lu mel ni diabète tension ak feebaru hmm. bu ñu ñoo ñu jàllee ñu doog a jublu ci ñu ci def forcé wuñu kenn pour mu ñakku ku bëggul ñakku yow la engage waaye waroo tere keneen mu bañ a ñàkku hmm. waroo tere keneen mu bañ a ñàkku pikiir waa takk der yi nag takk der yi ñuy wax hmm. bu ñu dégg tell rek ne damm na pour jàppale askan bi la ci kaaraange gi ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ak équipe ñoo ngi def lu ñu man wér gu yaramu askan bi rek moo leen soxal gërëm personnel de santé bi yëpp ak waa Sud FM yéen a ngi fàttali askan bi saa su ne ci feebaru mbas mi ñu ngi leen di gërëm ñi ci mbas mi ñu ngi ñaan bu vaccin bi ñëwee ngeen defe ko noonu boole ko ci làkk yépp comme li ngeen ko defee ñu koy dégg ci kàllaama yépp ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax ñi am maa ngi maa ngi jaale nag ñi am mbokk bu génn àddina ci mbas mi mbooleem ko am tawat ci Sénégal yal na ko yàlla may wéy président Macky Sall yàlla na ko yàlla dolli wér ak jàmm ak sénégalais yépp merci Adama. ok euh, soxna si loolu di jàngatam bi réew mi bitim réew 33 841 22 33 ñu jël keneen allo. salaamaaleykum waaw waaleykum salaam. Oustaz Adama alaaji xaas mbay fii ci Mbàkke boobu. waaw ñu ngi lay maa ngi siyaare ajaratu Ana di moom suma jigéen boobu di ko ndokkeel baax di siyaare ajaratu Sooro Jaan ci Tuubaa Daara Xuddoos. Hmm. ñoom moom vraiment ñoom jàmm rek leen yéen réew mi di ko ci wax yàlla na yàlla fayal ñu leen. Hmm. Ah, Oustaz Adama. Hmm. xaw man li ma mënta comprendre ci problème vaccin yi. xam nga médecin yi ak docteurs yi. politikuñ faruñu opposition faruñu pouvoir ñoom dañoo jàng seen métier bi juróom-ñaari at lañ ko jàng ba am seen diplôme. maanaam tey ci tey nekk yi ñuy wax nii ñu muy man muy sama moroom kenn ku ci ne ñi am soxna nag seen soxna di wan lor bu ñu demee hôpital bu seen soxna amee ñetti weer wala ñeenti weer dañ leen wax seen soxna am na ñeenti weer am na ñetti weer doo ko weeti su nee la bi sàngam lay am doom macha allah su bëri la ko waxee bis boobu dana am doom bu nee la ekkoon nañ ko góor la ëmb wala jigéen da ko gëm su ne bindalee ordonnance da nga dem jëndi ko kon médecine du ay caaxaan li li li jafe-jafe nag mooy li may wax toujours dayam koo xam ne ngooñ lay jaay wala muy jaay mbuus wala muy fori weñ wala muy defar pune mel ne man nekk ci ñàkk yi ñàkk yi sàmm ñàkk yi ma dem ñeneen Amérique wala ñeneen France ku nekk naan bu kenn ñàkk bu kenn mais ñoom ña ngay ñàkku Europe ku fa nekk la ñuy sàtt yéen fa tëral yaa ngi koy respecté ña ngay kenn mu faa dawal ci Europe permis France wala Amérique kenn ñu mu faa tax sa amoo licence kon duñ respecté réew moom bëgg a yàq suñu réew mi nañ may nit ñi jàmm te yoo dëgg te yàlla tax jafe-jafe amul ci réew mi ñoom ñoo bëgg a jafe-jafe président bi fi teg falul boppam yàllaa ko fal jaarale ko ci coobare yi doomu aadama man na leen dong laa koy ñaan couvre-feu bi moom na ko yokk ba 23h parce que Dakar daal vraiment lu ma fa gis métti na trop 9 gàtt na loolu daal laa am ci lu may ñaan nañ ci dimbali laa yor suñu yokkal ko gaay yi. Mhm. salaamaaleykum taala wa barakatu. Euh, kon mu ngi wax loolu di jàngatam ñu xaarati keneen ba tey ci ligne bi Alassane euh, bi réew mi wala bitim ñaari ponk wax sa Uh, Adama na def. waaw maa ngi fi. maa ngi leen nuyu uh, nuyu Socé Pape Laye Alassane ak Abdou Mbaye yéen ñëpp daal di leen ziare bu baax. Hmm. Uh, Adama. waaw. ñun forcé wuñu kenn ci affaire corona bi wala ci affaire garab yi wala ci affaire piqûre hmm. ñun dañoo am suñu xalaat di indi rek. Hmm. pour ni Sénégalais yi rek nañu def attention ci lépp luñ leen indil. ñu di ci engagé wu. ëllëg ñu koy regretter loolu la parce que dama wax ni dafa am ñàkk yoo nga xamante ni tubaab yi dañu koy def di ko wane ay image dañu koy def pour pour protéger ku leen wàll li nga xamante ne moom mooy soj ñenn ji di pikiwaale pour bañ a am siburu loolu la waaye na ñu jëlal la benn pikir indil la ko ni lii day faj corona te yow dara jotu la ñu ni par force dañ la ko ñàkk ku mu neex dama engagé wu man de defuma samay samay xarit defuñu samay doom defuñu te samay mbokk dama leen digal ni leen bu leen def ku dara jotul soxloo kër docteur dara da ngay ñaan yàlla di am wér. corona bi daal ko tubaab bi ñoo ko ñoo ko créé nee nañ am na fi te mille 2015 woote woon naa sa rajo bi ni tubaab programme ne nañ nee nañu population bi nekk ci àdduna bi lañ bëgg a wàññi. kon tey ji bu dem bu lii amee tey kan dañuy delluwaat démb ñun foofu la ñuy waxee. chaque jour bu ñuy wax dañuy wax loo xamante ne ëllëg danga nga ciy teg sa bët ndax information yi ñuy amee ci kaw Sénégal du ko gaaw a am da koy yéex a am moo war ñu leen koy indil corona bi ngeen def ci ndànk nañu bàyyi nit ñi dem liggéey yi Macky Sall nag jëlaat na couvre-feu boo xamante tout à dix jour la koy def diggante heure bu ko neex ba heure bu ko neex loolu baaxul ndax Sénégal yi xiif nañu sonn nañu amuñu xaalis liggéeyuñu nga bëgg leen a teg coono bi jël ay alkaati wàcc leen ci mbedd bi ñuy jàpp nit ñi di nangu seen xaalis ak di leen tëj loolu riba la ku ci lekk alal jooju du la jig nit ku liggéey bay bëgg a dee hmm. ku ci lekk loolu du la jig hmm. euh, loolu di jàngatam ba tey ñu jëliwaat keneen alsaan ci ligne bi 88 628 98 98 keneen allo. allo Sud FM. waaw. Adama. waaw. El Hadj Alioune Wilane Guédiawaye Sam Notaire. waaw ñu ngi lay nuyu Wilane. Euh, Adama ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax a baax a baax. waaw. Adama man dama bëggoon wax ak sama mbokki néew di doole yi. Mm-hmm. man dama leen di ñaax ne leen nañu def doucement bu baax a baax. Mm-hmm. parce que nag lu ñëw rek suñ kaw lay dal. Mm-hmm. Adama. waaw. gëm ne. ñett yi bu ñëwee. maanaam autorité yëpp danañ ñàkk. mbas mi nag opposants yi ni ñuy mën a mën a contre. maanaam chef de opposants yi ñëpp gëm nañu. xam nga ñoom ñoo ko gëmul. mooy militants yi opposants yi yi nga xam ne ñoom wax dëgg yàlla dañ leen di def yetu xeexukaay. Euh, sa premier auditeur bi nag wax dëgg yàlla dafa wax lu daw loo xam ne ñun ñii wax dëgg war nañ ci bàyyi xel. fàtte suñu bopp fàtte fàtte par indi nag li nga xam ne mooy jëriñ askan wi. parce que yaakaar naa ne loolu moo ëpp solo. ndax aadama boo fàttale ko te premier confinement ba bi nga xamee ne manifestation yi tàkkar naa se na excellence président de la république am yërmande euh, delluwaat gannaaw ci li nga xam ne tey moo doon couvre-feu ba yaakaar naa am na ñu nga xam ne dañoo walaat di nga ko xale yii dee di koon président bu dellu gannaaw waaye wane na ne moom yërëm askan wi moo tax moom premier couvre-feu ba mu dem ba xam ne aussi wàcc na askan wi sonn nañu yaakaar naa bi mu demee ba nga xam ne deuxième vague bi ñëw na mu wóor ko ne buñ delluwaat ci couvre-feu bu sot yaakaar naa xale yi tànte nañ lu ne de Grand Dakar Guédiawaye HLM partout waaye fu fu def tey bu subaa du ñu def. Hmm. ndax république nag dafa am doole ñu dégg ko rek excellence président de la république muy ku nga xam ne tey am na fulla am fayda gëm réewam bëgg réewam ubbul watan minal iman kon lépp solo mooy ñun askan wi nañu bàyyi xel bu baax xaas mbay rek dafa am lu wax lu wax lu am solo ñu yóbbu couvre-feu bi à onze heures maanaam loolu bu ñu ko defee dina am solo. waaw ah, ah, mu nga di xalaatam ñu daal di xaarati ba tey ñu jël ko allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw Gora Baye Fall Kër Sega di woote Diourbel. ndax ñu ngi lay nuyu Gora. ñu ngi lay fay di ñaan suñu ndox ba la ko di ñaanaat ci yàlla rek tey wax ñun ñëpp ñu maase ñaan yàlla jeexal mbas mi. jëre ko ci réew mi ndax yaakaar naa ñaan moom mooy ngànnaayal jullit. nangoo nañ ko ci borom xam-xam yëpp. Euh, wax ni alxasudu laa yasudu ñaan du doon sang parce que am na loo xam ne itam xel da ko nanguut waaw yaakaar naa ni corona amul yow doo ko wax te képp koo xamante ni bii sam réew ñor na la wala yitteel na la doo ko wax waaw kon yow dañ koo dépassé euh, ñàkk nag man mosumaa gis ñàkk boo xam ne dañuy xaar ba nga feebar ñu doo ko laa ñàkk ñàkk feebar moom ku ko xis def moom euh, faj la ñuy wax waaw fegu nag moo gën faju loolu ku ne yàgg na ko dégg ñàkk eh, yàgg nay am ci réew mi ak àdduna bi ñàkk dañ koo def pour bépp feebar boo xam ne bu ñëwee day faagaagal buñ ci mënee am matukaay ñu jël loo xamante bii suñ la ko su nekkee ci sa yaram moo lay défendre ci feebar boobu ba du la mën a du la dal wala bu la dalee du la ros kon loolu yaakaar naa buñ koy def di ko indi ci réew mi ak fépp ci àdduna bi fu ñu ko mën a yóbbu it dañ koy def ngir aar askan wi yaakaar naa benn président du jël loo xam ne day koy def pour waa réewum xam nga loolu sax da dul maanaam boroom xel mu la sax da ko dul xalaat wala mu di ko nangu dafa am yoo xamante ni bii du du sax yoon nit di woote ci rajo wala nga koy wax publiquement nit ñi di ko dégg boo boo gën gëmee defal soo gëmut nga toog parce que bari na sax lu ñuy wax naa duñ ko def wala gëmuñu ko te fekk ñoo ko gën a gëm te ñoo jiitu waaw dafa am loo xamante ni bii nag saboote rek lañ ci jublu alxasudulaa yasudu a ñaan moom doo doon sang mukk waaw loolu rek lañ ci jublu waaw yàq rek wasalaam eh, keneen ci ligne bi ñu jël ko mu ngoog jëtay wax sa xalaat wàllu mbas meek wàllu daara yàllu asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam maa ngi fii kii de sëriñ Pikine la naka waa Pikine sant bu baax alhamdulilah waaw yow li ñuy dégg mbiru affaire daara yi laay wax mm-hmm. daara dafa am problème ndax Sénégal ñun jullit yi boo xoolee ni ñu war a defee daara yi école foo dem école am na fa école français foo dem koñ boo dem am na fa lu tax pourquoi pas tamit daara yi mu ñu leen defal école bu nekk ñu defal ay classe daara ñu nga xam ne ku bëgg a jàngale daara jàngale fa daara allo. waaw yow laay déglu kay. waaw ma ne école bu nekk ñu def ay daara te tamit. pour pour pour pour pour jullit yi seen affaire ndox dëggantaan man li ma xalaat mooy këru diine yi fenn fu nekk ñu dem fa jël fa kenn. Hmm. ku baax ñu jël ko dugal ko suñu état. Hmm. waaw. Hmm. bu en tant que def ñu yoon ndax ñu yore ñu diine ji dañoo war a bokk ci état bi di mën a wax naan def leen nii def leen nii mais sinon tamit ñu xool di am ñu xam tamit. dañu ubbi seen daar ay étranger wala dara def leen neex di jël xale yi di leen sànni di leen liggéey loolu dañ ko état moo war a dox loolu yëpp toppatoo ko. waaw jërëjëf merci. d'accord ok. Euh, loolu di gis-gisam ci wàllu woowu ñu ti keneen ba tey wàllu daareek wàllu Covid bi allo salaamaaleykum. waaw daa mel ni dem na alsaan ñu xaar mu dellu si wala bu amee keneen ci 88 628 98 98. allo salaamaaleykum waaw ah, kooku dawatina Alsaan ñu xaar ñu dellu si kon euh, ñu ngi ci jotaay wax sa xalaat 88 628 98 98 biir réew mi bitim réew 33 841 22 33. allo. allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ bi. waaw na def waay. ça va maa ngi fi. alhamdulilah. ça va alhamdulilah. ci affaire bi laa bëgg a wax ci affaire mbas mi yooyu feebar bi. waaw aywa yow la ñu déglu. en tout cas en tout cas affaire vaccination moom bari na coow lool. waaye dina mat ak du mat daal bul dox bul jox sa loxo. loolu moom wolof wax nañ ko ba taay. te wolof moom du yokk. du sos moom euh, day hmm. euh, loolu mooy xalaatam góor googule euh, keneen ci ligne bi ñu jël ko allo. allo. waaw salaamaaleykum. waaw ah, waaleykum salaam. yaa oustaz. waaw. kayfa al xaal Seydou Jamil moo lay ziar. Seydou Jamil waaw ñu ngi lay nuyu. waa di wax ne daal xalaa kulli xaal oustaz. Mm-hmm. daara moom warees na koo mën a jàppale bu baax a baax. bu dul dara xale yi ndaw yi ñuy gis ñu nekk ay moomi nekk ay tuut tànk. Mm-hmm. jamonoy sedd bi foo tourné di leen gis. Mm-hmm. mu am ci ñoo xam ne nag alxuraan dong leen ñor nag ñu ngi leen di jàngal bu baax a baax a baax macha allah. waaye nag jàppal ne ña leen yor wax dëgg yàlla amuñu moyen te état jàppale wu leen réew moo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent des musulmans te amul benn mbir moo xam ne mën nañoo wax ne état yi fi ne ñi ngi yëkkati di ko jox waa daar di leen jàppale li dafay daw yaram ak ni ñu respecté école yi moo tax daanaka mënoo gis dara lu normal ci njàngu école yi parce que dañoo yemale wut te l'islam yemale la wax daara moom xalaa ku li xaal la ma doon wax naan sëriñ daara yaa ngi tey di jaaxle ka yoo ngir amuñ baat réew mi tey tonoon yaa ngi leen di lor lii moo tax maanaam ma di ko wax te lu ñu def ci seen dongo yi lu mu tuuti tuuti ñu sonal leen fitnal leen daara na ko état jàppale su fekkee bëgg na di am résultat ci li muy liggéey boo gisee lii ñu leen di yàq li ñuy daj ñoom état yi te mënuñoo def benn mbir mu ñu teg suñu bët ñàkk a too daara doo nga tax bu ñu toppatoo woon daara kenn du leen tudd lépp day taw fexe day maase. sëriñ hmm. daara yi moom man yërëm naa leen waaye nag xalaat ku le xaal ñoom yàlla lañ àndal. na leen état jàppale di leen jàppale bu baax te xam ne daara moo njëkk mooy mujj xale yi ñooy yori ji réew mi ëllëg ñi nga xam ne ñoo nekk ñitti daara gisoo leen ñu def dara loo xam ne ni lu bon la wala lu ñaaw wala mbiru reewande beneen bi nag mooy wàllu couvre-feu bi comme gis nga ñi nga xam ne ànd nañoo ak moom sax ku mel ni alaaji xaat ñu ngi ñaan yóbbu ko 23 heures kon gis nañ ne njëriñ li bëriwut couvre-feu du solution ci lii di mbas mi ndax bëccëg bi gis nga kaar yi ak yeneen yi ak yeneen ak yeneen président Macky na ko dimbi fexe wax nit ñi ñu respecté mesures barrières yi ak ak ya ca aju raxas yooyu couvre fa moom xam naa xaw ma lu ñu ci dugal nag waaye man jàpp naa ne du solution ci mbas mi waxuñ ko nag ngir contour dañuy wax rek suñu xalaat. Hmm. beneen bi mooy wàllum vaccin yi na ci président tey rek xalaat ku la ndax it fi mu nii moom nit ñi seen xel xaw na ci xas jaxasoo ba pare. Hmm. léegi nag lu ci man di am. Hmm. na ko teg ci siraatal mustaqim waaw ah, loolu mooy jàngatam itam ñu xaarati keneen ku am ah, beneen xalaat ci mbir mi 88 628 98 98 allo. allo Saas aadama waaw. kii El Hadj Xaaye Guèye la. ñu ngi lay nuyu Xaaye. ñoo ngi lay fay di ziar waa Sud FM yëpp. ok man de mbirum vaccin yi daal li ma ciy wax mooy euh, ñi ci am xam-xam nañ ciy wax ci jamul xam-xam jëm cee maanu ndax wax dëgg yàlla feebar boo xam dugg na ci réew mi at te feebar bu ma saa dugg ci àddina vaccin moo koy génne. ndax ñu bari ci ñun ñi ngas nañ wala ñu njàmbataan wala ñu xurit te ay vaccin moo ko fi jëlee. bu ndikkee nag corona dugg ñu ne vaccin ku fi jëlee ah man de du ma forcer kenn waaye man de bu ñëwee mën nañ maa jëkk a ñàkk man ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi yàlla yónni ñun olof di ko wax ni fegu moo gën faju noonu la ko yonent bi waxee man nag fegoo ma gënal may faju beneen bi ci tegeet mooy corona boo xam ne duggee ci réew ba léegi état Sénégal moo jël képp koo xam dal na la la la ngay la la la ngay faj amul kenn ku ci mas a jënd benn piqûre wala benn doom loolu kon métti na ci état bi te boo xoolee waxuma li fi dese bi rek fi ne léegi ñu am 500 et quelque am na waxuma la nag ñi ñi ñu fexe faj ba ñibbi seen i kër. kon loolu te loolu li mu koy defee lëfeen gu métti la ndax wax naa ni deux centres respirateurs la fi fekkan te def na ko cinquante deux kon meneen semaine bu ne ab def na fi centre centre benn beneen beet ñu ngi jàpp ci yëf yi ndax bi mu amee ñi néew doole jox na am lu leen jox. ba dem dugal ci yëf yeeg yëpp militaires yi ñu wax dañu ci dugal nag force de l'ordre yi nekkuñu force li ñeeg leen mais pour ñu mën a distribuer mbir mi ak mën koo sécuriser loolu doo ngay mbir mi waaye président du force kenn ndax moom moom c'est un démocrate nit ku baax la ku bëgg Sénégal la kon nekkul loo xam day jël nit ñi di koy yenn nit ñee ko def yëpp man daal li ma gëm mooy comme ku wopp moo lay faj moom état bu vaccin yi ñëwee ku ci nunguwula faju boo woppee moom na nga di jënd bopp moom noo koy di loolu man loolu laa gëm hmm. bu dikkee nag comme neex man ngaa dem man nag bu ñëwee man nañ ma jëkke li tax ñu ma jëkkee mooy man fegoo ma gënal faju hmm. wasalaam waaw ah, euh, Alassane ñu xaarati keneen bu fekkee waxtu wi des na euh, ñu woy ci jotaayu wax sa xalaat allo. salaamaaleykum. waalekum salaam. waaw. ñu ngi lay ñu ngi lay fay. mel ni kooku weesuwul nuyoo bi xëy na mu dellu siwaat Alassane 88 628 98 98 ñu jël keneen allo. allo waaw. oui. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. honorable député Légué ñu ngi maa xam ci Boubacar Seye numéro 2. Mhm. <laughs> alors bàyyi lay nuyu. ñu ngi lay fay. nuyu auditeurs yëpp di ñaan réew mi suñu borom doole ñu jàmm. Mhm. xam nga président Macky Sall bu kon dégg naa ko wax ne mi euh, président Macky Sall ku feebar moo lay faj. Hmm. président Macky Sall Adama laaj yu mille cinq milliards fii Sénégalais yi. Hmm. mille milliards yi njëkk a laaj. Hmm. ana mille milliards yi. soixante milliards la ci génne woon. jënd ko ceeb ba léegi am ñoo xam ne jotuñu si. mu doon laajal leneen cinq cent milliards ana cinq cent milliards yi. xanaa kay kon loolu mu laaj noonu waroon na ko jënd ay médicament ak tamit hôpital dara jàmm ba leen xam ne waa dëkk gu woon mu dem def ay matériel ni ñu doon faj mais moom def na maladie mais restez chez vous maanaam ñu feebarante seen kër ñu ngi leen faj fekk naa sax ñu naan ñu décoré meilleur ministre de la santé meilleur ministre de la santé li ñu feebar ñu ne nañu fajee seen kër ñu ne moom meilleur ministre de la santé. adama yéen intellectuel yi ay journaliste ngeen tam yéen ngeen yéen ngeen di crise maanaam di gëstu gars yi li ñuy wax lu mu doon santé bu dox nit ñi dañoo fajoo seen kër feebar feebar courant bi ñu ne fajoo seen kër ah beneen bi gis président assemblée nationale député yi yëpp dañu njëkkee teg ci Mburoogum Sow ñoom Idriss Seck ñu njëkkee teg ci Amidou Mbengue Ndiaye ñoom ñu njëkkee buñ ca jógee dem ci maire yi élus du peuple yooyu nañ leen ñu leen njëkkee ñoom tamit mu mosal leen ci. buñ paree ñu bàyyi bi deux ans ñu population bi am déclenchement deux deux ans ñu piqué administration gouvernement bi bu mu jox pat ñu door a dem ci enregistré ci kii bi mais askan wi kenn du leen njëkkee ñoom la ñuy njëkkee ba pare ñoom ñooy war a xaalis da nga xam ne biir si askan wi lañ doon nekkee. Ah, ñu xaar keneen ci ligne bi Alsane 88 628 98 98 wax sa xalaat bi keneen allo allo salaamaaleykum. maaleykum salaam maaleykum salaam Faye. waaw. man man la Daer nag man c'est la première fois ma woote fii mhm. la première fois ma woote seulement dama gis bon affaire daal vraiment. bon suñu mënoon daal vraiment respecté li gars wax moom da ciy baax quoi. Mhm. yaa wax ko waaw ah, mu nga kon nag euh, loolu foofu la yem xëy na mu ñëwaat Alsaan 88 628 98 98 wax sa xalaat bu waxtu wi desee ñu daal di jël ñu mujj ci ligne bi allo. kooku bëggul la sa tur di fay ki la jox nga lekk bëggul nga dee jàpp naa allo salaamaaleykum maaleykum salaam waaw Oustaz Adama Ndione maa ngi lay nuyu di la ziar ñu ngi lay fay soxna si di nuyu équipe technique bi yëpp di ziare sama ñetti oustaz yooyu mhm. As Mbaye de tey laa commencé dégg nag mu wax lu normal ndax nee na na na couvre-feu na na na dem ba 11h <laughs> ndax yàlla mu sóoraale ci sama mbokki jigéen ñi aadama man de boo gisee may wax ci couvre-feu bi. Mhm. sama mbokki jigéen ñi nga xam ni Sénégal boo wàññee téeméeri jigéen juróom-ñett fukk wéex. Mhm. daanaka dañuy daw rek yor seeni njaboot ñii seeni boroom kër génn àddina ñii seen ñii seeni boroom kër retraite. Mhm. te boo àndee góor muy xëy ba mënatul lay ngor yow nga dem liggéeyi soo demee sumbu jum na nga fa gisee jigéen ñi nga dem fii ci Cambérène de fii ci miir bi gis fii eh, eh, eh, jigéen ñay jaay foofu jën di a xëy suba di ca dépense di ca jox seeni doom ñu jàngi école aadama mm-hmm. ah ak sama moroom jigéen ñu yor restaurant ah loolaa tax ma yërëm leen dama ko xool ci sama bopp mm-hmm. kon dama koy ñaan loolu ko onze heures yi wow du xaas mbay wax président Macky Sall na ko yokk mu dem ba onze heures Hmm. bu dee ñàkk wi nag comme xaas nee na moom nañ ko jëkk a ñàkk ak hmm. Adama Dieng ñoom ñooy samay doom hmm. d'accord naa bu nu ñàkkoo ma xool ba xam ba am fukki fan ak juróom boo dara kiiwut man mii seen yaay man na maa ñàkku mais man daal sëriñ yi daara yi bëgg naa leen ñu boole leen ci réew mi ci leen bokk Adama jot na sax ñu wutal leen ministère nag ndax nag daara ci réew mi la bokk nag daara yi alxuraan ci réew mi la bokk boo demee Sandaga gee gis nga borom biti gee comme yaa ngi yor sa kaamilu alxuraan jàng daara ñëw fayu ñu leen ñaari dërëm gis nga jigéen jii ma gis ci ndar nee na am na xale yu mu yor sax kooku nag maa ngi ma Marème fay Sall mu dem ndar seeti am na xale yu mu yor sax xamul seen i waajur nit day am doom rek ñëw ba ca bunt këram mu tegal leen mooy fóot mooy def lépp na ñuy jël alali réew mi di ko dimbalee ñi néew ji doole. ministère yeeg député yi nañu génne seen xaalis yi dimbalee euh, jëndi masque dimbale ko réew mi nit ñi sonn nan les temps nag ñu génne seen milliards yi ñu wóof. dimbali ci askan wi te président Macky Sall na yónni ci caameen jaale ji Ka lu ne def Aliou ka lu la defal na ko ko rey na boppam ba 2008 la àndoon nag moom Assane Sow ba nëgë ni te mu mu gaañu kenn demu fa Abdoulaye Wade kat ba Cheikh Sy bi gaañoo dafa ñu wax Modou Modou Diagne Fada ñoom ñëpp daa fekk mu tukki may dana leen ay tëleen hmm. bu kenn def jërëjëf ba suba ak mu nga kon ñu daal di ko fi yemale waxtu yi faf nañu dàpp ba ëllëg ak jàmm kàttanu suñu borom ñu delluwaat ci yeneen i jotaay ñi nekkoon ci ligne bi jëkkalu ci kanam tuuti vingt 22h Marie Rosalie Ndiaye ci xibaar ci yaatal kàllaamay tubaab ñu ngi jëfal bu baax a baax Alassane Wade euh, ci euh, sottandikukaay bi Sud Nutrition lañ ci toftal muccul bi ci jëkk bi ti ak jàmm biir gudd fan ak wér wér la am ak mën ak fekk ak yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen xibaar yi. Adama Ndione. Dakar